di féliciter aussi le euh, président Macky Sall pour cette décision historique qu'il a eu à prendre par rapport euh, à sa candidature, à sa non-candidature pour un troisième mandat. Je pense que loolu war dina def benn tache d'huile pour l'Afrique parce que ñun lu ñu soxlee avancer démocratie bi la léegi ku nekk président bu ñëw bu defee deux mandats loolu si fini maintenant dans la ci constitution Sénégal bi bind nañ ko acté nañ ko donc loolu leer na dootu fi amaat beneen président bu fi ñëw di fi def mandat ou deux mandats de plus donc su ñu defee loolu ba pare même Afrique loolu dañu suñu voisins yi ils vont suivre cela donc je pense que Macky Sall lu mu jël nii du pour Sénégal kese mais pour Afrique la moo tax mu koy féliciter du ko kat par rapport au par rapport ku ko war a succéder au niveau de Benno Yaakaar au niveau de APR man xalaat naa ne meilleur candidat bi instant bi nii Amadou Ba la Amadou Ba il a expérience de la gestion de l'État déjà il a été ministre des finances xam na nu mu demee il est le premier ministre xam na nu mu demee actuellement moom moo nekk di def euh, euh, suivi plan Sénégal émergent bi donc je pense que Amadou Ba c'est le meilleur profil. waaw APR daanaka bu ñu xoolee élection présidentielle yi di ñëw. bu fekkee koo xam ne ñoom leader boo xam ne war na leen mën a représenté wu président sel yi di ñëw buñ ci génnee Farba Ngom ak ku mel ni Amadou Ba euh, yaakaar naa Amadou Ba laa ci gën a am yaakaar ndax ku ci dell ni Farba Ngom boo xoolee da nga xam ne choisir yum politique du yootu doon président. parce que Amadou Ba euh, ñu na leader boo xamante ni war na mën a yootu élection présidentielle yi. donte du ko gagné <laughs> mais euh, bu dee ci APR moom yaakaar naa menn Amadou Ba moo war a mën a représentation euh, ku mën a dem élection présidentielle. parce que du ci Antoine Diome du ci Aly Ngouille Ndiaye du ci ba te yaakaar naa quatre leaders yi ma la wax bokk nañ ci leaders yu gën a mag ci APR ah, waaye boo seppee leaders yooyu noonu même Amadou Ba laa seetlu ne APR war nañ ko mën a jiital comme mu dem. élection présidentielle. li ma si wax mooy maanaam affaire yi daal nañ ko bàyyi si loxo yàlla quoi parce que vraiment gis nañ fitna yi fi jot a xew xam nga ki alors que tamit euh, lépp daal nañ ko bàyyi si loxo yàlla xam ni yàlla nu mu ko tëralee noonu la koi franchement mais nag bon ñun moom ndaw ñi ñun Ousmane Sonko lañ favoriser woon. moom lañ gënoon àndal moom lañ amoon yaakaar tamit xam nga mais comme que demee na nii bon ah ñu ñaan yàlla rek képp ku fi yàlla teg ñu xam ne noonu la ko suñu borom bëggee quoi. APR peut-être mën na doon Mame Mbaye Niang ou bien Mame daal yaakaar naa ko quoi parce que gis naa ne euh, mu ngi doxal yoon alors que tamit ah am na ñu ko topp daal vraiment ki am nañ yaakaar ne su jëlee réew mi mën na ko changer quoi c'est loolu daal laa amoon lu ma siy waaw sama je suis citoyen bon am naa possibilité wax si réew mi tamit waaw